dafa bëgg nag attaqué dis lislaam maam bëgg attaqué euh, yi nga xam ne ay lobby yi nekk ci ginnaaw xëy na koy def loo bu boobaa nag mu ñëw sol moyen mbubu imam mu sol mbubu salafiste wala mu sol mbubu moo xam ne danaan mbubu kon Cheikh Cheikh Omar Diagne boo seetloo mbubu yu mhm. am na mbubum tijaan am na mbubum économiste nee na ci ay kanam <laughs> diplôme yi muy wax am na mbubum salafiste mhm. am na mbubum politicien mbubu yooyu yépp nag bu ci nekk da koy sol rek ngir mën a fen ak ngir mën a attaqué waaye nekkul loo xam te ni dëgg la ci moom mhm. loolu rek moo koy tax a jóg waaw kon loolu la kilifa yi seede ci Serigne Touba kon. Hmm. kon yow yaay wax ni Serigne Touba mayees naa critiquer am bindam waaye ña nga yaakaar ñoom dañoo rafetlu mbindum Serigne Touba. Hmm. dañoo rafetlu am njàngaleem dañoo rafetlu aw yoonam rafetlu ay jaar-jaaram yi nga xam ci la jaar tamit léegi euh, boo demee ci naxu nga xam te ni grammaire arabe ñëpp xam nañu moo gën a jafe ci grammaire yi am ci àddina yëpp. Hmm. ndax arabe moom mooy langue bi gën a jafe. xeyna sax jafe giñ jafe motax yalla tan diine l'islam wacce ci alquran karim ci la neena wu mala sax euh, manam euh, xam xamu fiqh wala yu melno الوضوء والبيان مسلمي بري بري دي هي عيار مانام دنجنا كوم بنا اك اروض اك بيان سماي واخ سماي واخ بو سيت لو لو وير وير لا بو سيت لو اي واخم مام ay waxam boo xoolee neex gi nii neex. nga xam te ni maam day mel ni ki koy wax da koo xalaat ay at at doog ko wax te fi mu la wax. waaw fi mu toll la wax la waxoon man Thierno ko fa ma ko waxee moom ku fa nekkoon ci condition yi ma nekkoon loo fa jëlee ngay wax waaye doo wax ma maanaam di teg sama sang bu see dem. ahbabtu rabbal alamin. xoolal yooyu wax bismillah yan moolu haay bilaa manaay wax yu neex yoo xam te ni maam yow mi koy dégg. boo dee am naa fa nga lii laa ko mos a dégg. nga lii tey laa ko mos a aw zaara يا ما هي أنا خديني قبل ما واحد يوم خمتين دل ما نيها يبني نيها ما أنا بو غرامير بخوله نمي نيها بخوله فق فق بتاعي نيك نمي نيها بفك كذي فق لا ما أنا بف بف أدب أدب أصول با بيان با معاني با مانام لم تي سوخلا اي معنى ييب نمي نيوي يلزم ما لا يلزم بام تي ديف غام تاني بو نيهو سا دو ديف يوي ييب نمي نيهي سي اي وخم nga xam te ne adib bi nga xam da koy dégg te sax du du ab sénégalais sax nga xam naar la wala keneen la bu ko déggee day xam ne lii moom wax dëgg yàlla wax la joo xam te nii maanaam comme ni ko gan ñi ñëw ci magal gi seedee eh, sudaani ko seedee ci moom yooyu da nga koy gis ci moom bu baax a baax a baax a baax kon li nga bëgg mooy maanaam fexe ba maanaam eh, taqal yoonu murit fexe ba nit ñi jàpp ni suñ Tuubaa am na njuumte man nag ña ma yërëm mooy ña ngay woo ñuy jéem a xool njuumtey suñ Tuubaa intellectuel yi nga wax ni nañ leen woo ñu xool njuumtey mag ñi ci seen téere yi ak seen bind bi nañ leen xool euh, nañ nañ leen woo ñu xool maanaam seeni mbind ñoom mën caa critique mën caa dolli mën caa wàññi banaan sax comme ni comme si ànd jóg ba tey ante ni yow dangaa ñi ba wàccee leen ba tolloo leen ak si ànd jóg doon nit ku baax la maanaam nit la koo xam te ni xam-xam la mu laa bëgg wax waaye aggut Sëñ Tuubaa ci awewu tànk aggut Alaaji Maalik ci awewu tànk aggut sax Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam te ne doom la ci ñoom aw wewu tànk àggu sax seeni xalifa ci wewu tànk fat mën na nga taxaw ni nañ ko nañ ko jël tey tey ok nañ dem ci maanaam ci grammaire ma lay defi ci naxu nanga ma génneel fenn foo xamante ni la commencé ci jaawartu jaar ci te tasawadu siraar jëm ci masaalikul jinaan jëm ci mawaahibul quddus maa lay défi Omar gay nga gennel ma ci benn fët boo xam ci naxu la wala sax ci imla la wala sax ci bay bayan la wala ci maani la wala nga ni sax xëy na baat bi bu tànnoon beneen baat mooy gën a neex baat bi loolu laa bëgg doonte am na murid yoo xam ne convaincre nga leen ndax xëy na bokk nga ñoom ay kan ba tax maam loo wax ñu ne gonga maa ngi woon ñun ñépp nag ñu jéem maa indil benn benn benn benn benn faux pas bu suñ Tuubaa def ci naxu bu ne ci fiq comme nima waxe won waxee touba dafa transférer xam xam-xamu sharia indil ñu ko ci ay téré mi ay mbiddam ma ngi lay ma ngi lay maa ngi lay wax tamit ni la nga fexe ba li commencé ci tasu du sixaar bi ñuy njëkk jàng ci fiq Sëñ touba taalif ko wala ci taw wala wala wala tasu du sixaar wala du sixaar wala tasu du shubbaan ba ca euh mat na xalil bi nga xam ne wayoon ko ma ngi lay wax ni la. indil ma benn njuumte fiq bu Sëñ Tuubaa def ci loolu wala nga indil ma benn njuumte fiq boo xam te ci xayaat yow mi jëm yi maanaam Sëñ Tuubaa ñu ma ci benn njuumte daal Sëñ Tuubaa kat lii mu def fiq na wuubu loolu laay ñaan nga indil ma ko tey loolu doo ko indi ma ko tey indil ma ko ci usul indil ma ko ci xawaa xawaayit fiqiya indil ma ko ci maanaam ci mbooleem fànni xam-xam yi Sëñ Tuubaa bind maa lay ñaan yow nga indil ma ci benn njuumte boo xam da nga taxaw ni ma ah sëñ Tuba na fii loolu daal ñaari ngeen ma ko doo ko indi doonte xam naa ni sax maanaam mënoo koo indi sa fit mayu la ko sa xam-xam mayu la ko sa dara mayu ko mu lenn la ko may mbir mi nag bu ngeen gisee ma ci ma ciy wax du mbir moo xam te ni dafa simple ndax jéem a dem ngir doon indi njuumte yi njuumte kilifa yu toll noonu nekkul loo xam te lu simple la lu rëy rëy rëy la moo tax euh, maanaam ku mel ni li li nga wax tey dafa wuuteeg li mag ñi seede suñu mbàgg bi la nee na yaruuqu lahul maana kariqati lafsihi nee na suñ tubaab buy wax maanaam ndeysaan maanaam buy buy taalif maanaam mi day neex comme ni baatam neexee moom bu jàkkaarloo la yow di wax. maanaam bëgg ay waxam jeex. ndeysaan suñ dafa nuru yonent bi lépp. abu musa al-ashari ngeen damaa mos a ñëw nuyu leen waa islam nuyu ko kon mu yonent bi ñëw di ma nuyu ma bàyyi ko mu kon ne di wax rek. ndax kàddoom gu neex sëñ Tuubaa noonu la meloon ak man ñi bu daa wax du bëgg ñu noppi mukk bu daa wax du bëgg ñu noppi mukk parce que baat bu neex suñu mbàkkee nee na ni baat bi neexee yaruqu lahul maana kariqati labsihi yi na sax maanaam baat bi ni mu seeye woon ak ni mu neexee maanaam buy bind li muy bind noonu lay neexee maanaam mi noonu lay neexee lafz bi tamit noonu lay neexee lafzan wa maanaam day neex waaye bu doon wax tamit noonu la wax ji di neexee moom tey kon buñ màggalee téeméeri at yi fi sëñ tubaab jógee woon ñu génn ci ay taalif yu bari suñ tubaa taalif génn ay téere xam-xam yu bari yu taalif génn lu bare bare bare téere xam-xam suñ tubaa yu bari ba commencé laa jaaxal ndax bu dëgg la nga naan septan seetaan yoo xam ne suñ tubaa taalif lu dëgg ay fen la nangam nangam yoo xam noonu léegi nag dem nga ba xam ne suñ tubaa taalif na lu bare bare bare bare bari léegi nag jàpp nga ni yow ci lu logique ngay doxee sa lu logique ngay doxee parce que ku taalif lu bari rek lu bari loolu mën naa am ay njuumte moo tax nga ni kon si ànd jub taalif lu bari kon mën naa am ay njuumte waaye na ngay dem di mën a génne si ay njuumte yaakaar naa am nañu la jiitu ñoo xam bu ñu gisoon jumte Sëñ Tuubaa weer nañ ko bu yàgg ci àll bi mhm. ñi di saaga Sëñ Tuubaa guddi ak ca tey bu ñu gisoon ay njuumteem maanaam weer nañ ko bu yàgg ca ca mbedd ma waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin njuumte Sëñ Tuubaa moom ah du ne am na de waaye de du yow yaa koy génne yow mhm. mukk yow euh, euh, kon euh, li may wax nii maanaam jëmmi sëriñ bi moo tax mooy wax ma ñëwaat ci li nga doon wax sànq ci affaire naan xam-xam fi ñu war a toll ak bu dee ba ba naan Sénégal diine Sénégal bokkut ak diine faneen kon problème am na déedéet problème amul de problème amul ndax bu ñu nee diine Sénégal bokkut ak diine faneen jubluwuñ ci ni maanaam diine ji moo bokkut ah kay Sénégal ni ñuy jullee noonu la màkk di jullee ni ñuy woore noonu la màkk di woore ni ñuy natte asaka noonu la waa màkk di natte asaka ni gëmee yàlla ni kenn la noonu la waa màkk gëmee yàlla ni kenn la noonu la ko waa Chine jullit Chine noonu la ko gëmee jullit yi Hong Kong noonu lañ ko gëmee jullit yi Amérique noonu lañ ko gëmee déedéet diine Sénégal diine fépp ñoo bokk waaye nag maam li jaral li li jaral suñ Tuubaa ci misaal lii li li suñ li Tuubaa ko xeexal lislaam jaral lañ la bëgg wax ne la ñun ñoo gëm ni amul kenn koo xamante nii ci bitim réew sëñ Tuubaa jaral na ko mu jaral jaral na ko lim jaral sëñ Tuubaa joxe boppam dami wa ahli wa awlaadi fidaau lahu maam dem ba joxe deretam joxe ak njabootam joxe ak ay doomam قصوري خلت والاهل عني تفرقت لمدح الذي عنه المديح قصير mandem دم با مام نينا سما بالي ak samay kër pare lim ci jublu mooy maam daa jàpp fa ëpp téere ne kër pare la war a tudd waaye la woon sax ndeysaan waaye téere ya fa nekk moo tax du ko ay kër ay pare la tudde pare dem nañ ba tas ko tas sama njaboot lépp ngir yonte basan loolu lañ la wax Sénégal amul fareen kon bul buñ nee boo boo nee buñ nee diine Sénégal bu tudd diine fareen problème am na déedéet problème amul de yow problème ci yow ni xëy na ñu bari ñu mën wax sanaa ma jërut tontu ndax aw wérut psychologiquement wérut moo gën a wér dara jëtu ko xëy na mën naa mën naa am nag mu jël cardinal naa mu mu mu jël ay doom mën naa mu wér di ndaxte am na wax yoo xam tamit ku wérut moo koy wax xëy na fii biir Sénégal waaye léegi nag damaa xamul pas-pas yi pas-pas yi luy problème pas-pas yi léegi ba tax ku mel ku nit mën a ñëwee taxaw attaqué Serigne Touba nit ñi def waale waaye nag xëy na wakka fa laaw mu ñu moo ci am kon daal